que sax euh, par rapport ak aide bi jënd ceeb moo nekkoon lu war a def est ce que war la loon suivre conseil Sonko yi def transfert d' euh, waaw xam nga euh, lii nii tout d' abord je félicite parce que li ñuy def ni c' est xam nga mënoon nañoo jël par exemple dix milliards wala ñu jël quinze milliards ñu def ko ci ceeb bi ci dund bi mm-hmm. mais milliards la jël soixante neuf milliards xam ngeen luy milliards 69 milliards am na ministère yu bëri yu fi nekk 69 milliards moo ëpp seen budget mu jël loolu yëpp jagleel ko population yi jagleel ko booy xool président bi mu ñëweeg léegi il plaide pour l'équité sociale mm. et l'équité territoriale mm. gis nga l'équité sociale boobu kenn du ko ko yàqal pandémie bi waru ko ko yàqal moo tax il faut trou yi fa am il faut mu fatt leen pour nit ñi au moins ñu dund président ku bari yërmande la mais nit ñu dundagul bu fekkante ne dégagé nañ somme boobu yépp mhm. mu ñëw pour jox ko effectivement population les coins les plus reculés camion yaa ngi fay dem je pense que actuellement dégg naa ministre bi démb muy wax mais daanaka daanaka ceeb bi yépp àgg na à destination mën naa am nag àggagul ci yenn communes yoo xamante ne c'est un peu Euh, loin par rapport à la région wala par rapport au département démb rek maa ngi jaar ci les deux voies euh, aéroport maa ngi gis camions yi di wàccee au niveau de de de la commune de sous-préfecture de Yoff sous-préfecture de Yoff donc pour vous dire que lii du ay naxe mbaay lii c'est quelque chose de concret loolu dañ ciy sant le président de la République sant ci ñi nga xamante ne ñoo ko ci accompagner boobu léegi parce que lii du moom moo ko moo ko moo koy lekk ah du famille am du APR du leneen. population bi la mais c'est l'argent du mais effectivement mais tey yàlla dafa def sama xaalis la sa xaalis sa xaalis yalwaankat la c'est pas l'argent du président Macky Sall. yàlla dafa def force Covid ñaata nga ci def. lan force Covid. yàlla dafa def TVA yi may dagg nag naan ma force Covid yàlla dafa def kii madame Biteye yàlla dafa def tey jii moom lañ dénk réew mi. Mhm. moom lañ dénk réew mi c'est vrai que l'argent di contribuable c'est-à-dire moom mooy jël moom mooy l'arbitre moom mooy arbitrer mhm. moom mooy ne 69 milliards dañ koy jagleel ci dund gi mhm. ak population yi mënoon naa wax leneen beneen somme boo xamante ne c'est moins que ça mais daf ko jël jagleel ko population yi loolu loolu dañ ko ciy santé transfert d'argent yi ngay wax mais transfert d'argent yooyu Sonko di wax est-ce que gënutoon parce que fu mu toll nii. on nous dit que 529 625 ménage ñoom fu mu toll nii ñu ngi menacé euh, de famine fii nii au niveau du Sénégal nga gis ne sànq say biir kàddu yaan may wax ne que peut-être am na ay communes yoo xam ne ceeb bi yeggeegu fa. est-ce que aussi par souci de transparence wala sax euh, pour euh, jéem a rek suturaal doomu aadama en tant que teg transfert bi gënutoon. parce que transfert bi boo xoolee moo ëpp efficacité. dañuy sant aussi di jaajëfal bu baax les élus locaux. waaw nangu leen rek euh, euh, euh, sur ce point moom. damay damay ñëw expliquer la il n'a jamais eu raison sur nous Sonko imposteur la li muy wax suba ba jant soow jéem a jaxase sénégalais yi la ak njiitu réew mi di président Macky mais boo seetloo bu baax nga xam ne Sonko mi il pas de bonne fois ci communication am yépp nag. non je suis Euh, il est là pour le Sénégal uyu ma bu fekkante ne euh, maire yi. Hmm. bu fekkante ne bon volonté yi jóg nañ ñoom ñëpp laxasaayu génne seen poos dara ci liñ yor jàppale ko population yi avant même dund gi di ñëw ñooñu dañu leen di féliciter di leen remercier bu baax amaana yow def nga ko amaana man def naa ko sama quartier amaana keneen ak keneen def na ko sa diir dire dama bëgg sénégalais yi ñu bokk ndey bokk baay pour que réew mi. mi nga xam ne ñoo ko bokk suñu maam yi bàyyee ñu ko ñu bañ a ruus ëllëg mm. ñu yóbbu ko foo xamante ne si kenn foogewu ko sax te yàlla dafa def président Macky Sall tey moom lañ yàlla eh, defal à la tête de de ce mm. nañ ko jàppale d'accord wër ko jàppale ko pour ñu réussir vision bi mu yor doo ko gis dans la sous-région vision bi mu yor doo ko gis au niveau mondial mm-hmm. peut-être suñu réew moo toll fii ci développement mm-hmm. mais vision bi président de la république Macky Sall yor man de gisuma ko fenn. Mhm. kii nu mu tuddati euh, transfert yi ngay wax mais transfert yi. man waxuma ko de Sonko moo ko wax. voilà sa question bi boobu Sonko transfert yi muy wax. Mhm. mais gëstu ko bu baax jàpp naa ne gëstu ko bu baax wala book gis nga bu ñu defoon transfert dina la wax ne ñu jëloon ay camion duy ci ceeb yi yóbbu ko mooy gën c'est-à-dire à chaque fois il voit le contraire kooku nag wax dëgg yàlla. kenn kenn mënu ko kenn mënu ko mag magum jëmm la boo ne ko weer baa ngi nii nga koy séen mu koy séen bu ne ko gisuma ko munoo ci dara absolument rien du tout maintenant mm-hmm. transfert yi ngay wax d'abord jàppal ne ñëpp amul téléphone mm-hmm. Dakar gi nag boo fi nekkee da ngay yaakaar ñëpp am téléphone ñëpp amuñu téléphone deuxièmement jàppal ne transfert boo transféré sa à dire jëlal benn commune par exemple nga transféré ménage yi fa nekk déjà point de point de tran point de transaction yooyu noonu. Mm. d'habitude communes yi nekk ci àll bi les communes rurales amuñ ko wala buñ ko amee ay some maudite ay deux cent mille cinq cent mille la ñu mën a la ñu mën a joxe la ñu la gars yi mën a retirer te bu fekkente ne tey jii envoyé nañ la ko nga garder ko sa téléphone am na ñoo xam ne sax mënuñu lire bu ñu leen envoyé mën naa am mm, portable bu rër wala du ñu gis message ba. waxi politicien un autre problème ñu nekk foofu naa jotuñu jotuñu. te boo leen joxee boo leen transféré affaire bi ñu war a déplacé wu loolu c'est d'autres coûts yeneen coûts yoo xamante ne doo ko sax comprendre déplacé wu pour war a jëli mbir mi. coûts yi nag yi coûts yi marché transport bi nga xam ne amoon na. tamit problème yu bëri. lépp loo jël am na ay coûts mais dama la bëgg xamal ne. lii moo gën a simple transfert yi moo gën a simple. no non transfert yi ñoo gën a ñoo gën a compliqué. Hmm. am nañu amaana am na ñoo xam ne danga nga leen transféré ñu nekk euh, chef de ménage xaalis bi waa fami ba duñ ko gis c' possible. je suis d' accord. non c' possible xam nga lu tax ma wax la ko euh, bourse de sécurité familiale ñan lañ ko jagleel góor ñi bokkuñu ci de. te d' habitude chef de famille góor la. mais bourse de sécurité euh, familiale transfert nga ñu def non. non ci ci au niveau des au niveau des des post mais foofu noonu. pourquoi gis nga problème problème yi gars yi di jànkuwanteel bi. no gis nga problème yi yi femmes yooyu yi jigéen ñooñu di jànkuwanteel jóge seen commune xëy. suba ba ngoon doog a jot seen xaalis wala le lendemain ñu doog a jot seen xaalis gis nga ruée boobu noonu ruée vers les point de transfert wala les point de transaction. Mm. ruée boobu mën nañ ko éviter. Mm. wax dëgg yàlla lii cest dire li ñu def nii. léegi regroupement yi di jël ceeb bi nag moom. beneen beneen service lañuy ñuy rendre population yi. d'accord ñu yóbbul leen ko ba fañ a dëkk. d'accord transfert yooyu ñoo fi ëpp problème. Hmm. ñëpp amuñu numéro. boo jotee foog nga déplacé wu dem jëli. toutes les communes du communes yëpp ñoo am ay transfert d'argent man hmm. xam naa ci dara am na foo xamante ne. courant ba egg eggagu fa. Hmm. xam nga yooyu yëpp c' est des des yoo xamante ne peut-être Sonko defu ko bu ko defoon dana rendre compte ne wax dëgg yàlla li gars def nii li gouvernement def moo gën a simple. d' accord. d'accord euh, ñu des ba tey euh, ci problème euh, aide alimentaire yi nga gis ne soulevé wu na aussi ay tollé yu bëri par rapport ak octroiement marché bi nga xam ne moo ñeel wàllum transport ñu jox ko Diop Sy nga xam ne moom c'est déjà un député ñu wax aussi par rapport ak marché yi nga xam ne moo ñeel ceeb bi ñu jox ko aussi benn certain libano sénégalais nga xam ne kenn xamul ko ci wàllum ceeb wàllum jaay kii leen ko xamee woon fast food mu indi aussi ay problème ñu bëri jàpp ne président de la république Macky Sall ba mu doon euh, jël nguur bi dafa jaayoon Sénégal yi euh, benn plan par rapport ak euh, benn slogan par rapport ak gestion réew bi nga xam ne ñu ngi ko critiqué depuis du temps de maître Abdoulaye Wade par rapport ak nu muy impliqué famem si biir si biir dëkk si biir pouvoir bi ñu gis ne président de la république moo fi waxoon la patrie avant le parti ñu mu mel ni comme fu mu toll nii sax jéggi na euh, le parti fu mu toll nii euh, la famille la ñuy wax noo gisee euh, implication Mansour Faye au cœur de cette Covid. mais mais moom moom xam nga benn affaire dafa am. te yéen da ngeen da da da ngeen doon critiquer Abdoulaye Wade par rapport à ça avant may ñëw ci l'honorable député Diop Sy. moo mm. wax la tuuti rek lu ma xam. justement ci le ministre et le ministère. euh, de Mansour Mansour Faye d'abord ministère boobu moo war a jël en charge li ñu war a def nii dafa tombe nag tey jii moom lañ ko jox moom moo ko gérer donc ci moom la war a jaar ça c'est un mm. deuxièmement le ministre Mansour Faye nekk na quelqu'un boo xamante ne am na expérience bu bari par rapport ak lii n'oublie pas que moom moo doon gérer programme national des bourses de sécurité familiale mm. n'oublie pas que délégation ñi nga xam ne ndimbal yeeg yooyu yëpp moom moo ko doon gérer moom lañ ko ko joxoon autant direction la woon xawma déléga délégué mm. moom moo nekkoon foofu délégué donc yooyu yëpp bokk na ci euh, expérience boo xam ne am na ko yàlla dafa def pandémie bi fekk ñu Mansour diriger ministère boo xam ne moo war a jël en charge tout ce ndimbal tout ce qui Euh, euh, équité sociale équité territoriale donc c'est lui te ministère am kat am na ñoo xam ne ñoo ngi yuuxu naan wooy ministère bu mag la superpuissance nangam ak nangam mais non ministère euh, Mansour Faye xam nga ñaata la ko budget la am cent un milliard ministère de la santé ñaata la. boo demee yeneen ministères yi ñaata budget la ñu am ministère de la santé c'est près de deux cent milliards de budget boo demee ba bu fekkante ne kañ superpuissance ministère lañ koy jox dañ koy jox ministère de la santé wala ñu jox ko beneen ministère de souveraineté encore une fois ministère bi mu yor ministère bu ndaw la par rapport ak yenn ministères yi mais xam nga lan mooy problème ak li nga doon wax monsieur Sow xam nga gisoon nañ fii koo xamante ne lépp la doon gérer ci kaw ci suuf jaw tout tout tout la doon gérer loolu bokkul xoolal budget yi comparé cent par rapport ak budget yeneen ministères yi. parce que boo boo jëlee budget de la santé nga bëgg koo teg euh, tëkkale ak euh, budget xaw ma ministère équité moi je me dis que ministère boobu sax peut-être euh, les gens. non exemple rek parce que santé moom boobu moo nekk vision bi ngeen am si par rapport à la santé vous au niveau de la l'APR loolu daf koy mel ni ku koy conforter. mais xam mais xam nga lan mooy problème bi. tu verras que yooyu ñoo ëpp fuuf budget. Euh, ministère Mansour Faye. monsieur Sow xam nga lan mooy problème bi la ci par rapport à l'honorable député euh, Diop Sy. waaw ci ñëw xam problème bi par rapport à Mansour fay parce que euh, président Macky Sall dafa jaayoon sénégalais yi benn politique. ne leen carrément man su ma ñëwee du ma nommé sama frère ñu gis ne ba mu ñëwee nommé na frère am ñu gis ne carrément mu ne leen su ma ñëwee sama famille dinaa ko écarté ci gestion pouvoir ñu gis ne carrément famille mu ngi en plein cœur. si mbir mbir mbirum pouvoir bi mu mel ni comme président de la république lépp lu mu diggee woon a sénégalais yi naxe maay la loolu est-ce que dina cohérence sax moom ak tamit na euh, politique bi nga xam ne da koo diggee woon sénégalais est-ce que président de la république demul ba si biir rek wan gannaaw sénégalais la patrie avant le parti mu nekk benn slogan boo xam ne kii di président de la république gëmu ko te les faits la